leen noo xam ne nii waaw bu fekkee baaxoo yoral lu dul jeex faale la lijjanti lijjanti mais Asmone Doucoumane wax dëgg yàlla baax la à partir de jour de tey man du ma waxoon à partir de jour de tey baro dañ ma ci wutal ay kees nu mu tudd CO kii déedéet déedéet kii original CO bi bu ngeen àggee tamit du ma ma ndax ndaxte dama. kii nag kii nga raw indi ma ci loo xam ne sama kër moom man ci laay doog ba léegi. mi ngi noonu xool ba am ci fa. kii nag nga raw basin bi xam nga ko moom basin bi. barke à part du jour tey. asman ndukumaan mi man moom lay naan ma bu ma la xëy du ma ko kii. waaw mais boisson bi tuddul asman ndukumaan. dégg nga original la tudd. original la tudd mais asman ndukumaan mii. moo ko defar moom lay naan. moo koy moo koy jaay. waaw kii basin fës na guerre la tudd. lu loolu. fës tuy subee tudd fës na guerre mbasin bi moo tudd bi moo tudd fës na guerre comme ni Jesner waaw fa Autriche la jógee Autriche kay fa la lépp di jóge lu baax li ay Jesner yëpp fa lay mbasin bi boo ko solee même temps tàngaay doo ñaq du feeñ dafa baax muy basin bu am solo. kan moo koy jaay. kii laama boutique. xam nga Asgay. Asgay mii nu ma ko boole ñu ni ma lay boole nit boole ma ak nit. dina boole góoma kenn. ah yow mais dinaa la booleeg as gay mi. waaw bii 100 pour 100 coton la. tey ko toggee ba léegi yaa ngi ñàkk xoolal lii kii mooy fës na guerre. fës na guerre tas na guerre. <laughs> fës na guerre tas na temps bu ne mën nga ko sol. yaa ngi may dégg 12 mètres kii yeegoo. mais mais boole ma ak moom ba pare rek. waaw dinaa ko booleeg <laughs> yow. am baay baay dégg ah. ñoo ngi fi ak port autonome de Dakar. mooy port port bu mag bii. ñoom ah, it sponsorisé nañu kër gi. jàpp ci liggéey bi ñoo ngi fi ak la LONASE. xam nga LONASE. moo ñuy carte xam na ne moom. waaw LONASE <laughs> ñoo ngi fekk ONAS. ONAS mooy ndox mi. déedéet ONAS ñooy jofal. mooy ndox mi waaw xam naa fatt fatt yi xam naa ONAS kay. xam nga ñoom bu nu liggéey ONAS est-ce que ci yaraax bi fii. mi ngi noonu fan la mu nekk ñoo nekk booru service des mines. Oh, ña fa oh. ak sunu bet. waaw sunu bet moom boisson la. sunu eh, eh, eh, sunu bet du benn boisson. <laughs> sunu bet <laughs> beneen société la boo xamante ne nii ñoom it dañuy def ay jeux sport ñu ah. waaj a dugg ci làmb yi eh, de kële ah, sama kilifa nga ba déedéet ah. bi un deux suñu bet suñu ah moo ñuy carte mi ngi nii waa jaa ngi mi ngi noonu suñu bet a ngi noonu ñii ñoo ñëw jàpp ci liggéey bi am may dégg ñii ñoo ñëw jàpp ci liggéey keneen ku jàpp ci liggéey bi fii dun la fi tudd da wax la ñaari bat bala ngaa jàll ay ca vas yow waroon toog fi sax naan yow da waroon toog ba ne sponsor yi doy na parce que yow da nga def lu ne ci réew yow ma la làmb rek mais nga def bégaay sa làmb yi mosuñu joo gis nga wax ci lu ñaaw. déedéet jéem ko bu la nit waxee lu ñaaw sax di nga toog wax ba say bët taa nan xaw ma ko defaraat. te bu la nekkoon nga fayantoo. a bari na bi la yëkkati kee nga barke si Abdoulaye Dieng <laughs> billahi wallahi taray dana ma boobu tee ma nag yi ma ne eh, sa waay laal lañ ko de war a avant war a avant la ma ah da wii est-ce bàyyi na bàyyi naa bu yàgg ku daanu yaa ku daanu yaa xool ba daanu man daane lu ma kenn oh, keroog ah, la doon wax uh-huh. ñii ñoo tax ñu toog fi nag di liggéey ak nag mm. diiwaan décor gis nga bi nga fi njëkkee ñëw xam nga mel woon nii. man kay bi ma ñëwee naan Bégaay. Ah, Bégaay am na xaalis xaw ma nu mu man kay wax naa sax téléphone nee na Bégaay. Ah. loo laal waaw parce que plateau bi may gis. <laughs> loo laal laalul dara. waaw naa la ko téléphone kay. mbiru yàlla la. Oh. ñii tamit parcelle la ñu nekk. moo ñu koy defar ñoom ñoo jaay fas na guerre. Ah, fas terminus ah lii ay apporte la. ah lii moom ñu ngi nii rek rafet ba dee. non non non importe la. rafet ba dee de. gi moom boole ma moom moom moo koy. dama lay boole moom. très bien. moom mu jàppale te loolu dina ma ak borom ah? xanaa j'adore xam xam nga sànq moom laa bëggoon tudd nag. ah non j'adore ah nga bëgg a. laa bëggoon tudd diwlin bi. diwlin bi billaahi te du ma ko doxee du ma ko waxee. waaw xamul tax ma koy consommé. Mhm. j'adore Aziz Ndiaye ngi jàppale waa Guédiawaye. Mhm. bu ma doon xaar bu muy bëree naan may jàppale may wax kon man ma nekk hypocrite. Mhm. mais mi ngi jàppale sumay rek. mi ngi jàppale waa Guédiawaye mi ngi jël xaalisam di ko dugal tamit ci réew mi. kon suñu droit damay conseillé. ceeb ba ak diwlin ba yëpp mu ngi ci biir. dégg nga man dama ko man dama waxantu xam nga tax loolu dafa am benn rakkam boo xam ne moom la ma boole États-Unis muy muy muy muy muy ab Ndiaye. ab laay Ndiaye ku baax. xam naa ko moo ma réservé 2012. bëgg ma yiir ma yërëm ma mhm. asi boole ma ak moom kon bu tey rakkam demee bër bi ibbi loolu tey nekk géewaay di ñuy jàppal di jàppale booy yi mhm. te pourtant mënoon naa ko doxee rek comme ni ko booy yi def di publicité publicité internet mhm. mais sama kër loolu lañ fay kii beneen ndox bi nag dina ñëw ma wax la ko non beneen ndox bi waaw bu ñëwee waaw ñu ko dugal non beneen ndox bi pourtant boo koy ñëw ci yow de waaw yow ci yow la des Demba Ka waaw ah, non Demba moom laay wax waaw dembaka sama xarit la parce que xam tax xamul tax xaar màggal de xamul tax gis naa ni muy jàppale yenn. ah mais ñun nag dugalu fi dara waaw moom laa la wax nii gis naa ni muy jàppale tamit làmb lépp dugg noonu waaye dugg man ndoxam kii mi ngi ne du bàyyi ba ndoxam laay ah, naan mais père Demba sa Demba xaaral ma woo ko de eh, ku la ko wooloo fii Demba yéet bu ko woo deetu non du téléphone de dama bu ma ko ne indi ma Demba Demba c'est mon ami su ma génnee fii rek su ma fi ñëwaatee wala suba kuy ñëw nañ teg fii Odokaal dégg nga KP incha allah te non da koy def. waaw da koy def soobee yàlla. léegi lii lan la doon wan. Ah. pour woon la ni ñii ñoo tax ñu góor góorgóorlu di liggéey. Mhm. pour vraiment di demander ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci. ñu ñëw ñu ñëw yow ñëppay ñëw ñu liggéey ñoom. ñu delluwaat ci biir émission bi ginnaaw publicité bi. am na solo ak buur Baye Balla ak Babacar yaakaar naa ne sànq ba léegi ñu woon ci émission bi mais am na solo trop. Mhm. mais dañoo gis ne guy ay moromam ci làmb àll bi ak ñi bokk génération ñëpp ñu ngi jël ñaari avance. waa guy gi dafa amul staff technique bu ko waxal. wala dafa amul ah wala dafa am agent wala guy gi tey jii dafa pareetu ci làmb lu tax mu mën a jël ñaari avance comme ni ko ay moromam defee wala dafa jekkul lu tax mu mën a jël ñaari avance problème mu supporter waaw waaw loolu tamit mën naa nekk wala ñàkk pare wala mbër moo xam ne ñàkk pare wuyul fii bala moo continuer direct laa wax de moo njaay moo la envoyé kii bii nii lu mu envoyé kii gën a mi ngi nii directement ana lu xaaral moom la xaaral ma kii la ko léegi. envoyé wul lu ay photo non de xaaral rek. moo jaay bi est-ce que amul problème. moo jaay xaaral rek <laughs> dégg waaye kuy gi jàpp ci. waaw Moon ñu ngi lay. Moon Ndiaye direct Moon Ndiaye ñu yor ko la. ma rus xool Moon Ndiaye ma xam nga xam naa ko moo nga nekk saalam. nee na per ba kay maa leen seetaan vraiment eh, la. déggoo nekkul mooy doomu day bougé. 124 la nekk. nee na Bourguel musuma déggante ak moom mais nuyul ma ko. Eh, xam naa ko cent 124 la nekk. gis nga émission bi jëfam yegg na émission bi émission bi. bu fi génnee bu ci bëri na di di <laughs> mooy nekk ak bouse mooy dem moom moom bouse bu demee kër këram foofu lay lekkee. waaye xam naa moo njaay toog naa ko moom bouse ak euh, moo gét yëpp si. ayca mooy nit baax mais bu ñu ñëwaat dañoo génn ci Ada Fass bi dañuy dem fële wala waaw dañuy dem fële génn ci Ada Fass bi parce que Ada Fass balaa nga fa doon génn ba dafa am lu ne guy gi ñi ko daan di ngemb muy daan mm. actuellement ni ñoom ñoo ko yor xam nga loolu problème la aussi no wax sax dafa gën a ñaaw ah. da ko ni mm-hmm. li lay daan mm-hmm. biir géej waaye lay bàyyeekoo mm-hmm. te dégg ci ay wax ne dootul dem école morfaram ndax dafa am lu ñu fa suul fekk suuluwuñ ko du fa bëri du fa bëri ayca ñaari question ñaari question yooyu dafa a daan ngemb ngay ak lan suul foofa ba tax nga daw. ñaar yooyu tontu bi maanaam. maanaam dañ koo déy. dañ ko déy dañ nax am ko déy dañ koo nax. nee na fa ma daan ngemboo di daan. léegi fa la nekk. waaw dañ koo déy dañ koo nax. foofu rek laa ci yem. waaw lu tax foofu la ci yem. loo ñu non foofu laa ci yem xam naa tax moo loolu comprendre. non fa laa yem dafa ñu la daan ngemb ngay daan la Ada Fass wax te ñooñu la daan ngemb ngay daan. ba doon champion léegi daal yi léegi ñoom ñoo ah, nag bu fa lay lu tax nga yem xam naa li ma la wax li mu dëgg la. waaw kon na ba mu ne nag ñi daan géej lay jógee. loolu la wax de. ah man ak maa jaaxase ak ñoom ñi ma wóolu daal nekk ak ñoom maa ngi ak ñoom te booba tey ñoom laa nekkal waaw yooyu moom comme li père Babacar rek bataille boobu moom boo ci duggee sax mën na la indi ay détails quoi. contre Siteu de am na fu buuse jaaroon bataille psychologique. <laughs> dugg foofu waaye tamit. <laughs> <laughs> non non non buur buur. dara jëru sulaay buur buur xam nga man boo ma delloo sama jox rek buur ko ñaan. loolu ñaan la bu ci dugg baal noonu rek. ndax dimbali ma rek xam nga sànq damaa rëcc la sax ba dafa tàbbi ci piège mais dimbali ma ci rek.

non da nga ma ne korom pour ma noppi wala mais buur buur kii li tax mu daw franc daw Quench xëy na am na fu mu ko teg. songu Ada choisir ko rek. voilà loolu moom boo ñu may ko rek man kay <laughs> man kay buur. buur question bu mu posé. waa c'est-à-dire on peut laisser. loolu bomb la Babacar. non non c'est-à-dire. oui loolu bomb la ah mais Babacar bu ñuy suivre bu ci nanguwul la. non ñu ñuy suivre waruñu leen laisser ah, à leur fin. non non non xam nga pas forcer à un éviter de répondre. déedéet non non non. mais question bi dafa jàllul sax. yii question bi Babacar. personne personne kenn xamul lan la question bi. loolu day tojum réew. question bi ne daf ko nii. am na man daal nee naa ko yaa poussé. yaa ngi Boucher. xam nga ca ca combat Siteu ba. déedéet non kon euh, na wax relation ak Boucher Boucher waxoon. na wax relation ak Boucher. am na non rek. ah, ah non relation ak Boucher c'est-à-dire non en fait. mais ah, bi nii rek moog sa waay bu ñu ànd ko à. waaw fa ñuy dugal. mais yow ma daan gis chaque fois yow ak Boucher yéen nekk tout le temps tout le temps. mais jot boobu amatul parce que tamit euh, moom am nay jabar am nay doom boobu amagul jabar amul doom te it xam nga àndatul ak yow it ma ngay dem di ànd ak Balla Gaye. waaw waaw léegi waaw non na. Boucher dafa yoroon ndam ci digganteem ak Siteu ba combat bi sotti. Hmm. ko laajee ki ko gën a soof ci àddina <laughs> lay wax. Siteu waaw. Eh. Mhm. que dafa am eh, bëgguma wax. waaye non buur ah, bu dee yow yaa war a wax yow moom da wax. buur nag sàppali bëgguma wax. buur nag mais ndax na tey jii bu buur gi loolu gox loo am solo la. mais ndax dina Boucher defoon ci digganteem ak Siteu mën na ko def ci diggantam ak Ada Fass. waaw. non non man gëm naa ko. Ada Fass yëgul ne kii toog guy gi la. kan. Ada Fass. Ada Fass jafewul daan ci. yëgul ne kii toog mooy guy gi moom yëgul loolu. moom jàpp na ne la lamb ja lu mën a am guy gi bu xeexee daanu bu bëree daanu moom loolu la jàpp. waaw loolu la ñu xamal fii te nee li gën a garaaw mooy amul lu guy gi di def géejawaay soo ba ngoon këram ak école ma fa lépp xam na ko ndax ma fi am bi ñu nga fa. waaw mais tamit loolu moom daal ku ci bëgg mbër mi bay ànd ak moom lim lay def loo na ko def loo bopp wala nga assumé waaye man ku ci def loo xam ne wax dëgg yàlla ah. waxoon leer na yow fii am na koo la seetaan. de dañ la yooyu na tàng na sax. amee ah, dëgg. yow ko daw. ku ciy def loo xam ne li wax lu leer la. non ah, wax nga ku mbër mi def loo dara. yow assumé rek. quoi dafa def loo lan dara. lan la ko sant dara jëmale ko ci yow. xam nga da ngay jub ne li li may def xam nañ ko fi may nekk xam nañ ko. waaw ngi mën. da ngay jàpp ne Ada Fass dañuy ñëw sa kër am lu la loolu moom ñoom ñoom. ñeme nañ ko Ada Fass ñoo ñëw Dakar bañ paree seen biir yàgg na. waaye nag defal defal ba pare xamal bul xam loola ji fekk. ñoom man suñu paree pour tout la. guy gi guy gi est-ce que est-ce que yow. wala mën naa nekkoo nekkoo nekkoo nekkoo di def fausse mm. parce que Ada Fass ba mu toogee fii moom loo wax préparation physique la lay wax. Mhm. préparation tactique la lay wax. c'est-à-dire il ne parle que sur le plan sportif. mais l'aspect ndax nee na ak aspect psychologique bi. non li mais yow yow su fekkee ni question bu ñu bu ñu la posé rek. nga am benn euh, ramification nga am benn ramification bu xam ni côté mystique lay doon li ma lay wax li ma lay wax daa mel ni moom combat euh, euh, kii li ma lay wax Ada Fass il est dans un combat sportif yow yaa ngi ci benn combat mystique li ma lay wax ni Père Babacar moom du toogoon fii tey li mu war a def du ko du ko wax ci yooyu yooyu ay sàmbalaa rek bu ñu dara ay sàmbalaa rek yi mu war a def noonu du ko wax mais après man xam naa quoi ci côté yëpp parce que man côté yëpp fàtt naa ko fàtt nga fépp fat naa fépp amul fépp nag ba ci làmb ji fépp làmb ja làmb ji fépp ñun waa làmb non bul ni yow laa làmb fa may dem yow doo fa nekk yow da report di ma séen waaw yéen seen face à face kañ la ah, wax dëgg yàlla man fi mu nii. kañ nga gëj a gisante ak promoteur wala nga déggante. yàgg na yàgg na. yàgg na yàgg na de. mais oh. mais xam naa nag ba ngeen ba ngeen ba ngeen signé léegi ndax gis nga fi promoteur yi. waaw déggante nañ fi benn yoon nag au passage di ko nuyu. gis naa fi dégg nañ fi benn yoon. mais dégg naa yow da koy woo sax la jël. gis naa ko fi tamit benn yoon. dégg naa ko. waaw gis naa ko benn yoon. <laughs> dem naa ko tamit quoi mais guy gi nag guy gi waaw mais xam nga mais nag ah mais guy gi ñeme naa nekk ci contrat lu xam nga tey yow da cent cinquante xam nga noo xam nga émission bi xam nga émission bi tey da ngay woo nig Nicolas mu jël ah, la <laughs> émission bi mais li Nicolas yow li Nicolas ci contrat am nga nekk non non buusee wóolu ci la as laaj li Nicolas yi moom la tëgg ah. ñaata yoon bi mu la tëggee ba léegi benn yoon nga diggante ak moom waaw ah, benn yoon waaw parce que moo laaj loolu benn yoon laa diggante ak moom te benn yoon la tamit laa toog ak moom loolu moom du ma. mais woo ko ci diggante bi ay appels yu bëri jëlu la. waaw mais non woo naa ko benn yoon. mais xam naa mais xam naa. non bu doon noonu benn yoon benn yoon mu ne ko woo non xaaral ma wax la mais dama xam li woo naa ko woo naa ko mais buur yow kii guy gi numéro 3 la xanaa de lu ma xamoon. waaw léegi léegi xam nañu ah, def déedéet nañu bàyyi affaire ay lig Nicolas xamul tax nañ ma wax yow nooy daane Ada Fass. dañ lay laaj. <laughs> dañ lay laaj ci Ada Fass. non tontu naa li ma wax lu leer la di. non yow bëgg ma wax la question la question yëpp da nga ko daw. non yàlla tere na nga woo tontu carrément du ma wax loo xam ni man du ma ko jëfee. non non da nga war a tontu carrément bi ba yóbbu guy ci niveau bii mu yegg Ada Fass li mu bëgg def gi dana ko loolu maa ngi koy sentir. li ma bëgg a def comme lan. ci face to yi ngay xalaat noonu. waaw ah. Ada Fass ak mafia bi mu mu ci bëgg a def ko ci mais xanaa boobu sama loxo ko defee da nga koy dóor. non dama lay laaj rek. Ada Fass rek laa xam. da nga koy dóor en booy bi xale la de. waaw ah, man mag laa. Hmm? booy ndaw la de ah sax xale bu saf saf. en tout cas du ma nekk moom dafa daw combat franc. daw daw daw daw booy bee. te man guy gi combat contre franc guy gi nga a waatu rëy yi mu fi waat yëpp waatu sax dafa mel ni ci biir waxtaan bi dafa sotti ndox bi sedd ci waxtaan bi. dafa samp nit mais ah su ko fi ñëw samp nit li guy samp na nit. non non léegi problème bi mooy da ngeen maa laajul laaj boo xam ni mën naa cee tontu. ah, ah déedéet man laaj. ah laaj naa la léegi ne la laaj naa la léegi ne la aada nee na ñi la daan ngeem ngay daan ñoo koy ngeem. loolu tontu naa leen nga leen doon tere mais loolu Baye Balla man man je suis ma tontu ci loolu. suñu la nee da ngaa daw sa combat ak Franc daw sa combat ci tontu. non léegi nag la nee. fu la nee ngay ginaar yooyu. da nga dem jël kan mooy maxal mi foofu non boo ko fay ci fii ci gàttal pour ma la dem naa ba sama di seeti sama papa Gaston seeti ko mhm. ba ma ko seetee. magal laa fekk ak Abdou Lat. waaw maga ne ma bëgg naa combat ma ne ko bañu ma ko. mënu ma nangam laa fay. mais la ma fay arrangé wu ma. te la xam ne bëgg a daw dañ ne ma fay arrangé déedéet maag maag franc bii muy wax. yaa ngi franc liñ ma fay ci aada faas. Oh. fay ñu ma ko ci franc. leen la fay ci aada faas moo ëpp leen la fay ci. bokkuñu. ak leen la fay ci coins. bokkuñu. bokkuñu. waaw ah, mais nag du ma fekk loolu tamit man it damay. Ada Fass borom Dakar nag. non du question loolu. mais boo déggee loolu xam ne yow combat bu mag ngay doon nag Ada Fass borom Dakar man xam naa fi combat bi toll. mais nag boo déggee loolu tey du ma ñëw naan la nga naan ma dafa tàppet wala naa nga naa la non loolu du ma ci tontu. mais sànq daa fu ñu naa ne yàgg nekk. waaw man man man dafa am benn communication rek bu xam avec des espoirs cest à dañ lay wax ñoom. li ñu nar lu ñu nar. Mm. c'est-à-dire da nga koy avec fermeté quoi avec fermeté ak yooyu. Mm. waa léegi yow père bala nga avancé néew ma la léegi yow est-ce que di ngeen nangu cinq minutes bu ñu laalante du ma la seq ak moom xanaa ko loolu li ma nar wax naa ko. Mm-hmm. wax naa ko fi am amee toog de yéen yéen a d'accord rek bëgg wax leneen mais nee naa la wala yéen seen question moo jeex. <laughs> mais nee naa la duma laa séq ak moom loolu kay leen li ma nar ki wala damaa nar leen ëpp loolu nee naa la duma laa séq ak boo ko entraîné dem États-Unis un mois yoo xam ne ci xol laa ko bëgg dóor ci put mu wàcc wax naa ko kay loolu kay nar naa ko xam nga ñun ñun waaw Aliou question yi jeex de. waaw ndax yaakaar naa ne. yaakaar naa ne mais tour de table ngeen dajoo ko ku war naa la tontu. yaa fi yaa fi nangul tontu ba tontu woon. ay tontu ma. indiwoo fi dara lu mais man li sama problème ADBK yi. Hmm. guy gi hmm. dafa jël Ada Fass. Ah. te fii mu nekk ni am na yeneen combat yu ñu koy proposé. Mhm. waaw wax wax am na xam na ko. waaw am na combat yeneen yu ñu koy proposé. ñaari avance ñetti avance yi. du ma tudd nag adversaire yi. guy gi. nan nga def ci combat bi ndax mën nga cee jëlaat beneen deuxième avance bu bokkut ak Ada Fass. mun naa mbala maa génn fii sax mu sotti parce que ñoo xam ne fi ma teg. combat mais la. waaw ah, non loolu xam tamit comme li ma doon wax man duñu nekk ci combat di waxaale tey wala tey ma toog naa la fii la. non Gris Bordeaux moom nee nañ César gi di ñu toll. Zarko de bëgg na revanche am. Eh, ñoom arrangé wu. dara arrangé wu ko ci bi la ko ko. ca lu a oyof. na lu mu mën a am ci àddina bëree waat ak ñaar ñoo ko gën a. Zarko <laughs> attention te moom na guy gi attention attention combat wu Zarko ak kii day dépendre ci. ci kan ci ci Ada ak guy gi nu muy terminé effectivement attention waaw bu ko defee ah oui ama neex daan bébé jéen ah déet bébé jéen sar koo ñëw jël ko déet guy gi mii tey jii mais dañuy wax sar ko moo gën a jar guy gi guddi gi loolu non moo gën a non loolu moom loolu moom père léegi mhm. ay combat na départ ci kii moom euh, loolu moom. loolu ah, moom kon yéen yéen làmb sax xam ngeen départ. non mais mais du ma tudd ay tur mais fu ay mbër yi demee ba bëri mbër yooyu. Hmm. man ma war a bëri sax ku gën a suufee ko ñu. ah Modou Lo ngay bëgg a waxal. <laughs> moom lay bëri ci te. non non waxuma kenn mënut a bañ a ci kenn. man daal saa yi li ma la moom mooy li ma nekk. muy ku nekk mën naa bëri muy combat bi. Hmm. aada am na combat. mais xool ko aada Fass guy gi. waaw ah, non non combat la waasu Zarko tàbbi woon sa loxo yi di nga ko jëlaat. Zarko awaasu. Ah, Zarko Zarko xam nga tey man ban combat yi yi ma gën a bëgg sax moom mi sànq mi ngi ko doon wax. ma ñi jàpp ni yow tey buñ la dóoree rek nga wadd. Gris Bordeaux lay waxal. <laughs> wala wala daaw la Gris Bordeaux moo ne guy gi ni muy taxawee ci làmb bu gëddee guy gi guy gi taxaw mu dër guy gi mu wàcc. waaw waxi Gris Bordeaux loolu waxi Gris waaw man est-ce que mbër man mos na ma gëdd rek ba dóor ma mu dal. mas naa gis rek mosoo bëri ku mel ni Gris Bordeaux. Ah, non dama lay laaj est-ce que mbër yi mbër mos na ma gëdd tey fàttali na kii kan moo prolonge. kan Gris. Gris ak kan Tafatine. mais Tafa Gris Bordeaux li mu xeex ci la Tafatine mooy prolonge. bi man na tee loo gis bi man dama ko esquiver. parce que tey ñun bu ñuy jàngal. loo esquiver Tafatine. ku kuur ba waaw. <laughs> kii delloo ca ca combat ba. non jël na mais kuuba ba mu natt pour dóor ko li kii di wax ne bu guy gi ni muy taxee bu ma gi ñëwul waaye maaleykum salaam ñëwul ma jël bañ jàppantee la ci suuf éperculé rokos ba waaw ah, te yooyu moom dal na yooyu moom dal na saf na ah, ah, ba ma demee la xam guddi yi ñu toll ak ku mel ni guy gi mi boo ko joxoon day noos day noos kala noos yi Gris Bordeaux ko wax lekk picc la ndaa nee lii moom damay nee comme croissant rek boo xam ne nii bu ànd café meew croissant la noonu la ko waxee sax croissant la bàyyi leen jàll ci mbëri yi nga jot a bëreel ban combat ñoom liñ bëgg liñ ma xam nga moom ma tàkk ci plateau bi. Ah, ne sa plateau bi ah, maa ngi ah, di ñëw di leen sakkir mais man. est-ce que dina am ku ma mën a poser question te loolu effectivement ama père Babacar bu demee bay arrière ci question boo xam ne man su ma amee defet damay nangu waaw xaaral waaw nit xamante ni bëri nga ko bëri naa ko ba daan wala bëri naa ko daan bëri daan daanu yëpp daan bu dee combat boo daal moom wane naa ci carrément dama bëre mooy 2012 maag Ama Balde parce que boobu dañu woon Ama bu la jàppee rek benn yoon lay nekk mhm. te boobu jël na tànk bi cinq fois xaw six fois kale bu mu def ma a ko baawul mbëri yi nga jot bëri de ku ci dàq bëri ku ci dàq bëri mhm. nga sentir ko ci biir combat nga xam ne kii bëri la mën no mhm. Ama Balde Ama Balde waaw Ama Balde moom def na presque ay huit kale yoo xam ne nii ndoxtu yu bari leer na li kii kalim def tey yàlla moo nangoo rek. Mhm. mais benn bëri mën na laa daal. mais noo ko préparé combat combat Kaaba. ñoo ko préparé combat boobu moom mi moo ko na ne bi ñuy moom xam na ne damay daan. dangay daan parce que boobu jàpp nga forme quoi. Mhm. kii li ma ko daan entraînement bëriwul te ndigli boo ko laalee da a bëri bi maanaam moom moo ku moom da koy wax làmbam moom danaan carrément sama yaay jurul ko ñu dóor sama kanam gi kenn ko la waxaat ko combat yëpp loolu ko yàq nga ni nga ni la dafa wax loolu combat barke alxuraan karim combat sama kanam gi jéem yi fi dama xool ah. sama kanam gi di toj nga ni yaay nee na sama yaay jurul ko ñu dóor ci kanam gi moom combat yëpp loolu ko yàq bu dee bëree euh, bëree bëree wax dëgg yàlla gisaguma ci mbapat ku ko dàq bëre. Mhm. mais nag pour affaire victoire nga xàcc la rusu ko. ah illa victoire bu a neex kay ngay am. da ngay jéem a jox moom day jéem a mais yàlla ko yàlla xare àjjana. Ah. ma fadam. waaw yàlla ko yàlla xare àjjana. ma mhm. fadam combat Ama Baldé dafa taxaw ak guy gi mii combat bëri coow lool. Ah. ngay lu mu ngi ne di toog. di mhm. mën na ko seede. gannaaw kër Ware Sarr. ci lëndëm gi guddi gi. waaw. dernière dernière réglage. ci laa gis mu def benn séance entraînement boo xam ne ba léegi gisatuma ko. dafa ma tànn man ak ñaari nit mun nañu mu wooñu ba ñu ñëw. mun nañu ci chronographie ngeen yi bëree ak guy gi. Mm-hmm. ndax Ama Baldé athlète la boo xam ne nii ci benn song da ci def six actions wala cinq actions. Mm-hmm. moo tax mu ngi ci ngay yàlla. Mm-hmm. mu ne ma léegi yow boo songee guy gi fexeel ba bu mu la jàpp te yow soo ñëwee nga bëree moom enchaînement. guy gi loolu def nañ ko lu mat une semaine ci chrono boobu pour mu daan nit problème la. mais bi ñu ñëwee ba ñu dernier jour entraînement am. ci la ko morphodam li ñu ko doon jox ci la ko tourné ci la ma daane entraînement daan ci keneen ak keneen ci la nag ci laa ko confirmé ko yow da daan. léegi ma ko daan entraînement moom ma ko daan entraînement la toog da ngay daan. mais bu man yow laay laaj. ci ay qualité guy gi li war a tax mu doon champion lan la. waaw xam nga guy gi. mu nekk roi. xam nga ah, naka góor waaw. waaw mais bu non dégg li tax mu war a nekk roi mais Bécaye champion la. waaw champion Bécaye woon woon woon woon woon. fi nga war a nekkee champion nga war a nga naan ma champion. xam nga xaaral xaaral xaaral xam nga góor gi li gënoon a jafe champion. moo ko dal mooy amul complexité wu adversaire dayo boo mën a am. góor gi dafay mbër mu imposant. Mm-hmm. ci góor gi rek nga daan gis. mu jàpp taf xool ay supporters am ne leen jug leen. ñu jóg mu buddi ba ca kaw dóor ci suuf loolu sañ-sañ moo koy def. day téye mbër pendant ce temps mbër bi. amul complexe moom non non amu ko. amul complexe. beneen bi ci des mooy fexe na ba tracé. yoonam ci même personnage moom bi mu yor. bokk bokk. jamono jim naan dama entraînement ba sama faar bi damm. bi bëri euh, loolu dëgg la est-ce que kii gaañu ma woon. loolu dëgg la de am na ku mu daan daan jàpp tànk Bébé Saloum kii la non kii la non Bazooka. Bazooka parce li tax ma gaañu. bañoon a daanu yow père que am na combat boobu. Demba Diop la woon bëri naa que. parce que bañ a daanu. moo gaañoon a bañ a moo tax ma ma ma kii ma hmm. ma daanu mais bu doon damaa damay daan rek du ma gaañu. Hmm. mais kii moo ma gaañ moo takk bi. ah bon Bazoog non si. yow téere yi la doon gaañ. déedéet. eh mais Fadam champion la woon <laughs> Bécaye Bécaye c'est hmm. bu kaf rek jeexee. waaw xam man moom du ko may dara duñ mayante dara. bu kaf rek jeexee. waaw kii def ma bëggoon. ah mais kii kii. léegi la changé eh, président amateur bi mu fi toogee. président bu <laughs> xamul dara. non champion le contact. non xaar non xaar non mais Mbapat xam nga non non attends. champion eh, contact champion contact ak champion arène. ça fait deux. non il faut ah, ñu wax dëgg nag arène. arène arène. arène déggu la bu waree takk ji. su jugee di lox booy takk. day lox su ko defee waaj day dóor da ngay gis day lox <laughs> moom moom lay lox. non arène moom xool arène bu ñu woo. booy wax waaj fi loolu. waaj yi bëri kat la mais du gis ku. bi maanaam non man arène moom tudd moom. arène arène moom du ma ko tudd. mais dama ne la. kon champion contact la. dama ne la il faut contact. waaw wala mbapat. Mhm. moom bu ñëwoon da ngay xam ni ki ki yaram moo màndi bëre. parce que ki ko jàngal bëre moo tax muy muuma. te kii li ma gën a def mbër ci la li ma gën a changé ci la moom la changé moo bëgg ma changé man dama daan yor benn man damaa sonal muuma te xamoon naa dinaa ko daan parce que dama ko sonal parce que muuma jamono boobu moom muuma bu la laalee sax nii nii nii rek xam na fi nga war a tëdd mais bu ma toppee muuma damaa bëgg ñu bëri xool xool état boobu maa moom dañ daan bëri école ba ñëpp jug taxaw moog sàppali ah nee xam li témoignage la dañ daan jug ñëpp taxaw. ay la grâce mais yow comme li nga wax rek Père Babacar. lii waaw lu commenté génn leen. koñ ba fii. noonu faram yi génn leen. mais boo génnee ko naan arène. yàq nga waxtaan bi. waaw léegi ba mu waaw waaye naa ko ci groupe bi. mais maa ngi woon ci waaw non muuma xaar xaar man lay ñëw. ma man pas terminé. ay question pour nga tontu mais yow dafa mel ni yow a ay muuma yooyu muuma ku baax la. kon baax na ok ok man la doon ay qualité man tamit sama qualité laa leen bëgg a wax rek. wax leen bëgg leen déglu ñoo la ko gën a xam ñun ñu la reporté boo par seetaan la xam lépp. non muuma laa est-ce seetaan nga ko. waaye bañ seetaan muuma ayca vas y. guy gi ko dégg. sa combat ak Bazooka. bëggul dégg loolu. Bazooka Bazooka ni mu tolloon. ak dynamique bi man combat moo ma yéem. ak dynamique Bazooka ak. géant la. non non bi mu nekkoon. boole ci dynamique bi mu nekkoon. Mm-hmm. voilà mais euh, làmbu buur comme li ma wax rek da ngay nekk des fois baisse de forme. Mm-hmm. mais bu doon bu doon kon ni ma comme ni nga ko waxee ni ma nekkee woon noonu. Mhm. athlète boobu noonu. des fois yenn combat yi ma ñàkk nii ay seconde lay doon ci man. sa combat xam nga tax lan moo la xaj sama. comme ak Reug Reug loolu la moom damaa blessure. daal mooy loolu. déedéet loolu blessure ngeen di ci làmb. man bi ma lay jël sa kër man dama la gis nga nekk en pleine forme. boobu yàqoogul bul mélanger. Eh, kobar eh, eh, yow jël si ma buur après mu yàqu. ba nga naan ma kat li ma gis ñii. waaw boobu moom sax guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy guy demaat mu yàqu. mais boobu bu nee ma combat bi ñaar boobu fekk nag boobu. carrière bu baax la def nag. ah def. carrière bu riche la def. non man booy dégg lu ma la wax ñu tëj ci làmb ji fi ndool laa daan. Sarko surtout ah, non franchement. Hmm, hmm, vraiment carrière bu daan naa mbër moo xam ni kenn ñi ma ko woon xaw ma Cheikh Kane xam na ko déet. mu nekk moo nekkoon caaro yi. Cheikh Kane te déedéet tam dee ci ndox mi. njagal ko yàlla kooku. muy maa ngi bëri moom ci combat Ama Baldé. Oh. dëgg Baye Pël bi. kooku yow bëreel nga Ama Baldé premier combat. bëreel naa ko non deuxième. spécial spécial spécial waaw waaw. njagandooy noonu kooku daan kum daan bërël etem sec États-Unis mu ngi lay nuyu etem etem sec etem nuyul ma ko nuyul ma ko etem na ko wala beneen bi uh-huh. beneen bi mooy mooy wàllum wàllum wàllum mbappat da ngay mbappat de kii ànd naag mbappat moom fu ne Thiès sax dem nañ fa mbappat mais bu ma demee tey. Mhm. moom boobu miinuñu ko mais xam naa ne miinuñu ndaanaan mais man comme que toj naa fa man la ñuy def star bi man dem naa ba bu muy dugg cees ki tëgg mbapat bi. Mhm. damay fay ma doog a bëri. da lay woo nga damay fay mën naa la jox benn nga laaj ko ko. beneen bi beneen bi beneen bi supporter yi ñu. li ma koy laaj nii. waaw daam kuy guy gi combat boo xam ne gagné na ko mais palmarès am ba léegi nangu cee wax. waaw yow saa yi jàllal. kan la Robert 2. jàllal Robert 2 bu mag ma Robert 2 bu njool ma. ñoom dañoo bëri. bari na ñoom ñaar <laughs> jàllal jàllal jàllal dooroon te bëtt fàgg yi dooroon ko. déedéet koo koy dóoraate ko beneen bu ndaw bi Robert 2 bi nga xam ne moo. koo bu njool léegi dama bëgg mu nettal la combat ak Robert 2 dafa xam. koo koy dóoraate xam ngeen bëri woon <laughs> day wax rek. day wax rek man maa daaloon di. waaw yaa daaloon waaw li ma la jaay nettali. ah bu fekkee guy gi daa bëri Robert de Kaw Casamance. Mhm. ñu dem combat bi métti lool ñu bëri ñaari round. Robert de guy gi boobu am na doole joo xam ne nii mais Robert de guy gi da koy yanu ba siggi tànki di laal suuf. Hmm? waaw. ñu àtte leen. jeexagul ñu àtte leen mu ñëw mu ñëw laaj ma ne ma noo gisee combat bi ma ne ko combat bi mënatoo koo daan. mu ne ma xaaral ma def pexe mu jàpp ci ngeen bu revére de ñoom ñaar ñuy dóorante bu ñëw ba ci booru saako yi sigg rek dóor de ci kanam dafa dina dóor ko ci ker dopp rek mu jékki saako yi xalam <laughs> arbi ni ne ko ndax mu ne ci gaa bëri mu ne sama nopp yi boo yëngu ba sama bët gisatu moom mi waaw ñu léegi arbitre ne Robert da nga ko ci ginnaaw saako yi hmm. kon léegi guy gi la ñuy jox ndam dañoo jox guy gi ndam rek yëkkati raw rek mu daw génne sànn asamaa fu ma bëgg a ñëw ak guy gi <laughs> euh, ah. ci digganteem ak euh, Eumeu Sène parce que dañu gis nii li ngay euh, génn di def déclaration boobu dafa bari guy gi bu ma sañoon tey du ma bëri ba bàyyi bëri te bëriwuma ak Eumeu Sène hmm. lan lan lan moo tax loolu su ma bëroon ak moom ne moo dàq bëri ci làmb ji su ma bëreewoon ak moom moo dàq bëri ci làmb te sama carrière li ko mën a defar mooy ma bëri ak Eumeu Sène mi ngi bëri ak Sa Thiès nag Sa Thiès yàlla na ko yàlla may ndam parce que am na yenn wax yoo xam sax boo waxee ñu ne far ak nangam mais man doxewu ma noonu mënuma wax démb Eumeu seen lu baax tey muy bëri ak Sa Thiès ma wax lu bon Eumeu seen ñi dàq bëri ci làmb ji moom la te moo daan ñi dàq bëri ci làmb ji Eumeu Sène te dama ko topp seetaan ko xam mooy kan dama ko topp seetaan ko mm-hmm. Eumeu Sène dem na ba bàkko ma tibb lim bàkkoo def ko ci biteel noonu di ko songo ay fan pour def boobu case case bi fii la case bi foofu Ablaye Diop xaalis mu tuus ba pare mu tuus ba pare boobu benn décotable la indi sol benn sort bu weex ci set bu weex def ci benn musuwaar fecc ba tourné noonu rek fekk boobu maa ngi sol su yére boo xam ne kii fu ma fekkoon ne ma xanaa yére bi dañ la mhm. ma ñëw toog mu baax ko mu pare ma tibb ko bu doon jamono yi tey moom tey ma dee dañ naan kon dama koy liggéey mhm. mais jamono boobu yow gars yi garaawuñu ngeen mooy xeeñ xun ma dem fa tibb ko def ko ci biir sanganaaw une semaine pour mel ni moom suuf suuf une semaine ama seen bi muy bi muy bëreeg Balla Gaye premier combat ba premier mhm. combat ba Demba Diop sama ginnaaw kër mhm. bu contact yi fi tey suba mu contact fi mais ci kaw filaawo laay di ko seetaan boobu fu mu daan seetaan foo sama ginnaaw kër ci géej waaye day contact fi tey suba mu contact fële ci kaw filaawo laay di ko seetaan di ko seetaan loolu day am ci mbër boobu duggagoo ci làmb duggaguma ci làmb moom sa idole la quoi. non Sakho Dior mooy sama idole. mais xam-xam bi muy bëree man moo ma neex te moo ma jaaxal moo ma yéem. Mhm. bu la mayoon sens. ah bu la mayoon sens. ba ma mayoon. bu ma mayoon bu dama koy buddi ba ci kaw jug taxaw ñu xam ne man nii mbër laa xamul tax. xamul tax. ndax doole jooju non de déglu xamul tax ah Eumeu Sène def fi mu dool nii ni muy def noonu man ci ñooñ la ay Eumeu Sène tànkam boobu mën naa nii boobu laa soxla te xam naa ne mën naa ci dara gars yi nag mënu ci dara ndax dañ koy ragal te effectivement champion la boo demee mën ngaa dëpp wala leneen dal la mais man duma ko calciner parce que xam naa li ma fay fekk xam naa ni may bëreek moom ndaama la moom muscle court euh, court la man muscle loola la su ma ko jàppee de su ma ko jàppee man day def ci ci ginnaaw te mun na am lu bari loo xam ne su may xëcc moom fekk jeexal na bu yàgg bala moo ñëw fekk jug na ba taxaw. yow loolu sa xalaat la quoi. waaw waaw góor gi bëri na ko maa ngi wax bëri na ko virtuellement nii encore léegi li may waxtaan li nuy waxtaan. te moom bëreegul ak Ada Fass. waaw yow bëreegul ak Ada Fass non c'est que nag père c'est que nag père gars yi ñoo ñëw ci gars yi ñoo ñëw ci. non dañuy waxtaan waaw dañuy waxtaan effectivement loolu. loolu loolu daf ma neex. waaw loolu parce que